Camara bokk ak Serigne Fallou Ndiaye ak Baye bokk ak BGM yow na ak Baye xoolal lu dëkk ngay mexe ba Marine yaroo ngay juddoo ngay di doomi Kër Massar yéen di leen bégal yéy jusur jusur geser geser gis gi marga ximbab ñàkk a wax ñàkk a def loola waral Serigne der bu sa yi bay doy dogal la xarak ba di la ba Demba Ndiaye mën a mën a ju gis ku na mu dara du ko wax jëf du du wax ni xoolal kuy def du ko wax bitil yi bari na waaye ndox yi dañoo wute lu waaye ndoo jaay te jarul nit kuy wër te mënu ko gis lépp di nu xet boole ko meew sukur te wër te jafe loolu dëgg la xoolal lii sartafal bii lii saf na ba noppi yàlla ko dogal waaye kii tax mu saf saf na ba noppi mu la ko waral kuy duumi Kër Masaar sa loxo ca kaw kuy duumi Kër Masaar sa loxo ca kaw ku doomi ngay na xale sa yaa ngi nii yow na mulu dara xale yaa ngi nii yow na mulu dara yaa ngi nii yow na mulu dara yii yii su waxee ñu dem gaay yow suus wu yaay suus suus ey suusal ñu dem wu yaay suus suus suusal ñu dem ay waay suus suus balaa maa ñëw ci wax ji sabar yow danga ko doon sa papa wala sa turandoo wala dangaa xëy lan lan moo la xëy ci sabar pap est-ce xam nga ne jànguma dara. lan tax ni. jànguma dara damaa judd rek jàppandu ci sabar ngir mën a dox. mais pap euh. sam papa lu mu mënti ma am sabar ak ko may. ah da nga ko doon. la barke Serigne Salim Mbacké Alaaji Mboolee sama maam. waaw. alaaji mbool mu lugaloo mooy sa turandoo it xam na ni ku ne xam na ni maanaam aar bi moom lépp luñ ci am rek nan ko sante maanaam alaaji mbool tëgg sa bàyyi tëgg mooy sama lépp yow boo def loolu ñu dañ laa war a dóor ba nga xëpp <laughs> maanaam pap ku ñàkk ki ñaan rek ci àddina boo ci nekkee tey tëgg rek lépp loo am rek war nga koo sante papa alaaji mbool Seck ak maam du Ndiaye Rose ndax ñooñu bu demee tey ba nekk tey ci aar wax dëgg yàlla à cause ñoom ak maam Seck Seck Faye moom laa doon wax. ndeysaan ndax ku ne xam na ni pap ñooñu dañoo doon suñuy maam nekk ci aar bi dimbali nu te detu ndax li may wax rek aar aar dafa doon loo xam ne maanaam li mu ëmb dafa bari pap man damay gis ni artiste à chaque fois da nga war a doon noble civilisé si bopp bëgg sa bopp sol loo xam ne maanaam fu la fekk da laa war a respecté ndax man gëwuma artiste boo xam ne da nga war a nekk di tuux wala ngay naan wala ngay gens wala ngay jëli fi jàmbur en même kenn xamagul kañ lay wasin saako ceeb la rek day xëy mu ëmb suba jàmm mu wasin mais da ko war a boole métier ba leneen loo xam ne tey maanaam yow sa jëm bopp lépp lu ci néew rek nga war a mën a jël ci métier boobu boole ko moom. kon yow yemoo ci sabari. Pape Kër Massar ba lu wër maanaam ci Ndakaaru. xale buy poos xeef. waaw lu rafet. waaw maa lay posal xeef yu baax. ongle baax maa koy def. tatouage bu baax maa koy def tatouage à vie te tamit Pape naa la xamal leen fu ne laay tatouage. Eh! problème yi dafa laay ongul. ah ongul permanent ci mën la wullee ñaay. te ngay wax ni nee na daa foo taxaw fu ma neex foo xam ne Pape Maguette ki lay wane nii. waaw nga ni fu ne ngay tatouage. non Pape mais damay am fu ma yemale. <laughs> <laughs> Pape Maguette loo wax ci loolu. jooy seytaane lay jooy dee ma ko daggal di ma ko sànni leen taay. mais Pape. waaw ah. ku ne xam ne ni fi ne pour l'instant nii place ba moom su ma fa nekkul Pape Gora fa nekk mooy suma rax jooju macha allah tamit doon sama xarit ma bàyyi ko fa. wax dëgg yàlla tamit ndax boo demee tey ba nekk ci aar bi wax dëgg yàlla léeg-léeg war ngaa mën a génn ci place bi dem nekk ci aar bi am ñeen ñoo fa bàyyi wax dëgg yàlla. Asia Asia. moom boo ko déggee ci sabar yi nii ma nga yor pose ongulam def yëpp ay tatouage ak yooyu mais yow. man dafa am lu ma ko bëgg njëkk laaj pare avant loolu yëpp. parce que man tatouage bi ñor na ma de. waaw yow yow waaw moom yow dégg daf la instant bi daf la délimité laay wax sax parce que dafa la dafa la la laaj ni fan ak fan ngay ngay tatoué ba yow tamit nga war ko topp di ko wax yenn yi bu ko bu ko wuyu dégg nga ko wuyu ci délire yooyu man dafa am question mu la bëgg laaj. Mm-hmm. pourquoi mbool. non mbool Ndiaye. waa pourquoi pourquoi mbool Ndiaye bi. mais su ma turandoo na la tudd. ok man aw ma sirnoo. ok man sa papa personnellement ay doomam amul kenn koo xam ne ku nii woowee kenn ku dul turam bi mu la tuddee. ok ñun kenn amu ci surnom. même liggéey bi ngay liggéey mis à part euh, tëgg yi ngay tëgg. waaw mais mbool lañ lay woowee lan may woowee. man du ma nangoo wut surnom à part bu weesoo sama logo bi nga xam ne fils de Ngéwal moo ci nekk. ok ndax fils de Ngéwal comme ku bokk ci Ngéwal na moom mën nga cee bokk. mais loolu personnellement mbool moo ko jël. def ko muy logo muy fils de Ngéwal boo tapee ci Facebook bi moom ngay gis. ok concurrence bi nga ne mu ngi ci diggante. Euh, yow ak yi nga xamante ne. ah foofu nga foofu eh, nga Hm? yaa waaw waaw waaw Pape. Ah, mu ni. sa concurrence ak sa diggante ak artistes yi nga xamante ne yéen a ngi bokk liggéey bi. ñun fi dañuy investiguer de. waaw mais Pape euh, ni man maa ngi concurrence ak kenn. Mhm. wax dëgg yàlla aar boo ci nekkee te judd ci man damay jàpp ne yow ku ñëw da lay jàppale rek. waaye man gisaguma ne maanaam maa ngi am concurrence ak kenn ndax Kër Massar gi ma nekk nii pour l'instant nii mhm. man naa ne su ma neexee maa ngi fayeeku loo xam ne samay morom fayewu ko leer na sama raq yi mhm. te mën naa ni maa ngi ci cinq single ak clip. macha allah la ma nekk Kër Massar samay morom duñ ko defagul. te ñaan naa yàlla ñoom it ñu def ko te bokk naa ci jeune bi nga xam ne man maa njëkk a génne single que Kër Massar ñu naan déedéet ma defaat single ñu naan déedéet ma defaat defaat defaat muy cinq. ma génne clip loolu c'est normal te su ma doolee bopp la. loolu c'est normal lu tax. Mm-hmm, mm-hmm. moom xaarul rek sabari mm-hmm. dafa am ci yeneen ruq yu muy liggéey te loolu dañ koy wax sénégalais ne leen ba ci américains yi ngay gis bëgg mel ni ñoom. yemuñu ci ñëw rek way dem. Mm-hmm. dañoo am yeneen ñetti liggéey li ñu def li ñu naan keep busy maanaam sa temps yëpp amoo jot boo nelawee 3 heures de temps 4 heures da nga ciy nekk ba keroog. Mm. ba pare nag dama la dara yemuñu ci yemuñu ci ñooñu de man gis naa fi ay politiciens yoo xamante ni heure pause bu ñu demee añi 3 heures du matin lañu génnaat seen bureau te man damaa foogoon ne 10 heures la ñuy ñëw toog ba midi ñu delluwaat seen kër ñëw 4 heures toog ba 5 heures ñu delluwaat seen kër. non dama lay wax pour war na ni yenn saa yi nga foog ni nit liggéeyul. Mhm. ndeke mi ngi daj coono yoo xamante ne. dëgg la yow xamoo. Mhm. mais du du yem foofu tatouage bi il faut nga leeralal ma parce que. waa ji tatoué nu mu tudd keneen ki. xaw ma ko ku siiw ki ne ci bi. xaw ma ko ki indi problème yi rek. xaw ma ko de di nga ma ci dimbali de ah. yow booy yow. yow dégg naa sinab tuddoo bi rek ngay tëb. ci ko ci doo tattu moom yi may def yëpp yow yow di nga def yooyu. non. waaw mais dañuy nëbatu naay ñun lu def. di ko de yenn saa yi mu gis mu uuf kenn ne lay tatouage ma ne Tito bi ni Tito a fay nag. day ci ko pas pour te am na yenn tatouage yoo xam ne du ma ko tatouage aada sama rax bi moom moo ko tatouage. kii waaw. yow yaa ngi doon wax sax kanam waa aada bi sax <laughs> kanam. écran bi da koy aada na ko bi na ko jël nay nëbbu. aada sa kanam gii ba boo bàyyiwul liggéey tatoué. waaw. lay lay li laa. sama xarit xam nañ damaa bëgg tatouage mais damay toog boo koy tatouage de bu soobee yàlla ñu delluwaat tuuti nga ñamalaat ñu beneen morso ñu ñu xool xam nga li ngay jàmb fële kër Massar nan la fay demee après Asia ñëwaat ak yow. waaw papa ah, ah, mu neex ñu ambiance ko. Kër Massar. ah Pape nee naa la comme que émission la boroomi sabar moom soo ko indiloo ñaari sabar moo indi ñetti sabar am na lu xaw a màgg ci moom tuuti. waaw parce que xam naa li nga bëgg li ma bëgg man man nga bëgg yow. man damaa bëgg bu may fecc lu mat cinquante sabar wër ma. njoor njoor gi yëngu. xam nga. dégg naa la de. li ma metti mooy. ku yor néegu sabar nga ne ko indi ñaari sabar téeméeri sabar. Pam Ndiaye. <laughs> Ah. bu dëgg neexee rek. fecckat yi yëpp bu leen xamee tey ak tey Sénégal ci góor dëgg la bokk nga ci mhm. man yow laa njëkk a suivre ci fecckat wax nga ma ko biñ daje barki Serigne Touba biñ daje sabar ko ba bëgguma xale bi xam ko yow laa njëkk a suivre ci fecckat non maanaam loolu ba ma koy wax du tey suñ njëkk a gisante man ak yow su suñu bët booba yow ak Mbaye Ndiaye Tilala eh ma waaj sama copain borom ndar amaana loolu fàttali ko dëgg la mu la ko doo ko fàttali ko la jour boobu noonu Xadim Balla Gueye wala def bu rëy waaw waaw di xewal doomam wax nga dëgg ci la ñëwee woon ci lañ sàcce woon euh, kayitu Mbaye mbay ti laaya wax nga dëgg ba mu waree voyage yi <laughs> kii ak may fàttali lu neex Afia yëg li kon Afia xam naa bi may wax ci yow xamul dëgg la sama soirée bu mujj bi tamit nga ñëw yëkkati xaalis bu bari teral non yow suñu waay nga te dangay ngay doomi géwël waaw loolu moo am solo li ngay def waaw soxoroo iñaane woo jour bi nga ñëwee ñu gisante nga mhm. ni ma mbool damay def le tout la ndax ci li nga nekk nii war ngay génn te ñun pap lu nu mën am ñun seen jëmm yi. Mhm. moo nu koy gënal ndax ñun bu ñu leen bañee ñun kenn du ñu xam. dëgg la. da leen may boo xam ne faaw ñu nangu ngeen nekk ci média. Mhm. ñun ñu doon seen dañuy bëgg ñu xam ne donc fi mu nekk la dañ metti Kër Masar la bi ñuy jóge fii nii bi ñuy ñëw taxi la ñuy jël. te campagne ci suba gi bu may wax du ma may woo suba gi ñu déggante damay xëy fajar dem liggéey yi lu ma la jënd sama place jëla war ko taxé barke Sëriñ Bamba kon su ma la dégloo la Wally Seck waxoon dëgg la musique boo ko lebalul du la fay mm. déedéet waaw nit day lebal boppam pap waaw dama sant yàlla baax baax macha allah su may grand su may raxi papa su may papa nga fa géwél bari na Kër dëgg la mais su ma demee tey ba benn instant sama jëmm ji kase ñu koy jël di ko yóbbu ci ay émission guddeeg bëccëg waaw di ma woo di ma fay loo xam ne man ñi ma daan àndal. waaw ñu may jàngal tëgg fayeeku ko ma koy fay mooy sant suñu borom. waaw loolu sant yàlla jar na ko mais dafa mel ni da nga bëgg a wax ni fële politiciens yi dañ leen seetaan. pap bu ngeen di jóg kenn du jàpp. pap dafa metti waaw yaa ngi naan ma sànq mbool xamoo fi nga jëm si man la pap ma ñëw foofu. ndeysaan. barke maam Cheikh Fall. jóg xam naa milieu bi si naa fi mais a la première fois ma ñëw ci télé. gars yi li muy wax ni dëgg la te ñu ñu du ñu baree ko du baree ko ñemee wax. Mm-hmm. mooy metti na nga taxaw ci télé wax ni dañu war a jàppale. jàppale ñu effectivement. Euh, mm-hmm. tey ñun bu ñu toogee fii sama papa di wax naan ku la defalul mënoo ko gërëm. déedéet boo nekkee doon doomi bëgg nañu jàppale da xool di wax dëgg ji mais ñun personnellement ñun suñ jëm danoo doon ay géwél yoo xam ne sama papa kër gu mu am ay géeram ak ko terale te ñun loolu lañ bëgg a nekk sama papa kër yi mu am ñetti kër yi mu am yëpp séntuwuma leen sama kër bopp laa bëgg a séntu. mais góor yàlla nga góor yàlla. barki Serigne Saliou Mbacke li may wax chaque jour sama raq yaa ngi nii li may wax bu dul dëgg ñenn di boobu du dëgg du ma bëgg ñoom ñu manqué dara ndax dama leen su ngeen soxlaa dara ñëw leen ci man te lu ma am dama koy bokk ak ñoom yu samay raq barki Serigne Saliou mais aar dafa doon loo xam ne pap tolloon naa benn moment boo xam ne dama naan damay bàyyi. déedéet déedéet bul def loolu barki Serigne def loolu ndax métier bi moo doon loo xam ne léegi moo may gunge ci lu baree bare mais su fekkoon dama ci doxee rek ngir bañ a xool tey métier bi rek perte naa mais yow actuellement yaa ngi wax euh, que li ngay fayee ko peut-être sa morom yu bëri yu nga xamante ne ñoo la jàngal way sax say mag yu bëri ñoo xamante ni ñoo la jàngal way euh, fayekuñu ko entre euh, li nga xamante ne moo di clip bi wala yeneen yi nga xamante ne yaa ngi koy def peut-être soirée yi nga xamante ne yaa ngi koy tëggantu ak jàkkaarloo yi ban nga ciy gën a mën a fayeeku waaw mais dama naan yëpp wax dëgg yàlla man bu ci ñëw rek maa ngi ci xaw a gis sa bopp loo xam ne lu ma mën a bokk ak ñi may àndal groupe bi mm-hmm. mais gisaguma ci loo xam ne à 100 pour cent war naa cee mën a gañe loo xam ne tey mën naa nit lii la mais na ku ma seet si. doo ma yërëm. Mhm. <coughs> ku ma fekk sama place doo ma yërëm mais ci li ma ci gën a am dëgg mooy damaa ñëw fekk man sama jëm bopp ci groupe bi ma daan nekk ak ñi ma daan yàgg tëggale ji. Mhm. ñu may sédd 2500 1500 3000. man maa ñëw ni personnellement dootuma ànd ak teg benn géwél boo xam ne muy ñëw di sédd 3000. Mhm. wala boo xoolee sànq bi ma duggee baaram bay bi ma ne tëj bi ma bëggee wax day metti ñun lii amaana ñi ko xamul rek ñoom ñoo ko xamul waaye ñun ñi ci nekk metti na. yaa ngi xaar diwo ak euh, sa benn morom boo xamante ni peut-être yéen a ngi bokk milieu bi. waaw mais euh, fi mu nekk nii na Kër masaar mooy li may wax rek dafa doon loo xam ne kàmb la te metti na. Mm-hmm. waaye nag ñu ngi sant yàlla ndax heure bu ñu tëggee soirée nit ñi fekk sunu. Mm-hmm. ndax le 27 décembre maa ngi war a bu rëy. concert boo xam ne chaque année bi mooy dixième anne bi ma ko di def moo koy defee terminus Kër Massar ren le 27 decembre le 30 maa ngi gisee tubaab la le 27 décembre laay gisee Kër Massar donc ñu nekk ci ay programme yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gën a yootu di ko am ndax li may wax rek bu ñu defaree woon tey mën noo am tey ci benn date boo xam ne ci fête yi di am kon ñun suñ jëm bopp chaque jour dañuy wax. Mhm. autorités yi nekk Kër Massar nañuy jàppale mbër yi nañuy jàppale artistes nañuy jàppale fecckat yi nañuy jàppale danseurs yi nañuy jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir culture muy théâtre dafa metti pap barki sëriñ Bamba waaw gëm naa li nga wax ndax euh, gis nga tey aar moom ak koo mënti doon ba ci Youssou Ndour suñu papa sax soxla na jàppale Asia gis nga boo nekkee maire ci gox wala nga nekk ministre ci gox wala nga nekk député ci gox da ngay jàppale waa gox ba mhm. man nag du ma la nëbb ku mel ni Modou Gueye mhm. mooy maire Jidda Caaroy kaw moom ñoo ko fa falte ko fa mais bërki démb li mu fa indi ci ay lampadaire ëpp na cent te nee na bu soobee yàlla bu ma yàlla suturaalee dinaa leen pavel fii yëpp moom mooy président AS Pikine moom lañ dénk impôts et domaines mu nekk ku yaru nekk nandite kenn nu koo nax mhm. teg liggéeyam ci yoon ba di jàppale jaam ñi mi ngi ci jumaa yi mi ngi ci hôpital yi mi ngi ci artistes yi mi ci ñeneen ak ñeneen kon ku mel ni kooku buñ ko cité tey ku mel ni yéen te seen dëkk war nañ leen jàppale ndax li nga naan ku la kenn du gërëm ku la defalul dara loolu mënta ñàkk mais ñu defaat benn affaire rek ñëwaat doog Asia doog am lu ñu indi tey Asia tey indi nga bagage. waaw tey indi naa fourrier tey. laay laay li laa may ñu dara rek ñu dem te ñëw. waaw Pape dañuy jàppee comme rek comme ci singal la bokk. waaw bu li jeexee ba Asia pare ñu waxtaan ci singal yi waaw. acca ñu dem ci loolu. géwël neex na yéy soo demee ba géwël yéy di nga añ lu baax daru jëbu xatte daam foo taxaw toog yàlla foo taxaw gis yàlla dina leen bëggal dina leen bëggal ba mu neex addina bi xam na ni daal mu li muy def bëggal jaam ñi la war lii may di mi géwël di mi géwël dina leen bëggal xoolal soo demee ba Kër Massar noonu de loolu mooy lan bu nga ne morso boobu mooy ban. waa mais Pape loolu dama ko yàgg tënk di wax ni géwal neex na. waaw ñu ni soo demee ba géwal. waaw di tëdd bu baax. waaw waaye soo yeewoo tamit di nga lu baax. Mm-hmm. waaye bu añ jotee tamit di nga añ lu baax. waaye bu reer jotee tamit di nga reer lu baax. bu tëdd jotee nga tëdd bu baax. moo tax man la ngéwal dafa neex te ñoo ko moom waaw kon maanaam ngéwal su neexee dara waru fa manqué waaye ñun jàpp naa ne ngéwal ñun suñ jëm bopp dara du fa mus a manqué ndax damay dégg kër ñi naan léeg-léeg ñu dégg ñoo xam ne ñu ngi ci biir askanu ngéwël di jëfe comme wàllum ngéwël mhm. naan ah ngéwël neexul de waaye fa la nit ñi waaye ñun ñuy géwël personnellement te ñun namp ko ci suñuy maam juddoo ci ngéwël màggee ci ngéwël ñun fu toog da naan ngéwël neex na ndax ngéwël su neexee neexatul weesootul nga yeewu ci jàmm ak salaam nekk ba suur ba suur te nelaw ba heure bu la neex na nga yeewu fekk kon ngéwél dafa neex. waaw ñun noonu lañ mel wute na ñoom Asia ñun moom mooy loolu. ñaata single nga wax ko moom nga jot a def. waaw avion maa ngi am 5 euh, single. 5 single def nga clip. waaw. ok euh, t'attends pas xaaroo peut-être benn artiste bu mel ni Wally Seck wala kenn koo xamante ne mu ngi ci milieu bi woo la pour ngeen def benn. waaw non woowagul ma ci na. mais yaa ngi koy xaar. waaw maa ngi koy xaar bu baax a baax. ak ku mu mënti doon amoo ak kenn problème. ak ku mu mënti doon du ma bàyyi kenn. man aw ma am na ay ñoo xam ne ay xale yoo xam ne tamit macha allah def naa ñoom ay single jàppale leen am na ñoo xam te wax dëgg yàlla dañuy def tey ay bagages yi ñëw tamit ne ma mbool dama la ci sentir comme ça pour ma ci. Mhm. tëggal ma ci son bi. ma ñëw kër leen ba pare tamit tëggal leen ci son bi mais ñu ngi xaar daal ñun suñu jëm bopp ak képp ku nu manti woo rek donc dañuy doxe ak ñàkk ki ku ñëw rek jàppale nu ñu nit ku ñu dem tamit fexe te bëgg mooy mu jàppale nu. ba bokkoo ci xale yooyu di wax ni ko ñoom moom suuf. ah xale yi nga yi di wax ñoo moom suus ñi fi jaay ñoom ñu ñoo moom suus de ñoo moom suus waaw non non man moom moom ma suus moom moo suus de ah kon ñoo moom tu es tu es franc kii moom jàngaloo ko moom mais premier single bi maanaam dama ko génne woon maanaam fax pour askanu ngiwol maanaam boobu sama débutant la dama ñëw ci sama studio boo xam ne nii mooy ñoom singo samay xarit ma ñëw daal leen tëggal son bu mu génne daan rab donc ñëpp la xam ñoom singo macha allah dama daan nekk ci studio bi ñoom sinon bu ñuy def ñoom maay ñëw dugal leen tam dugal leen cool dugal leen bëggoon bi njëkk parce que daan na mbóol lan ñëw fii ñu may la benn son xam nga génne ko ngir def ah, loolu day lu may neex la boobu amaguma sax xam naa ñu ñëw dugal ma ci ma ñëw dugg di def nii di tëgg di tëgg tëgg tëgg dajale di def di xalaat samay xalaat yenn yoo xam lu nekk sama xel rek mais nu mu tuddoon nu mu tuddoon ah doo fëx laa ko tuddoon ah fëx maanaam fecc waaw waaw c'est bien. waaw non loolu laa ko tuddee moom fecc bi maanaam fëx laa ko tuddee. bu topp maanaam gars yi xaay di fëx. waaw xam naa. bi ma ci génnee loolu noonu instant yi na ma daal di génnewaat lambar lambar. ah. waaw ah kon yow danga bëgg a daam seen danaa sàcc séef. non. wala yaa sàcc daam non ki daam seen lay toj. <laughs> mais nag xam nga la moom a gën a yéem mooy maanaam lambar lambar gi ñi ko génne bari na waaye Pape YouTube. dëgg rek lay wax bu nu nekkee foo xam ne àdduna dañuy seetaan dañuy wormaal kàddu yi. waaw di xool ñi nga xam ne tamit na wax ju teggi ne nga xam ne moom la ñuy dégg ñu la ciy sikk. dëgg la wax ji nga xam ne dafa ànd ak yar ak teggi ñu la ciy respecté. te ñun li ñuy respecté à chaque fois moom la ñuy bëgg ndax suñu yaay yi ak suñu papa yi ñu ngi toog dinu seetaan am na ñoo xam ne ñu ngi nekk tamit li nga xam tey muy prison yi dañoo am leen loo xam ne lu leen war a bégal mais mm. paaka lu leen di naqatloo dëgg la bu nekkee fii bu dee moom lambar lambar kay ku ne am nga man su ma neexee way benn morceau su ma tuddee ko lambar lambar xale bi looy lambar lambar toogal sa wetu yaay ku ne mën nga ko woy ku ne ngi way mbëggeel te mbëggeel yi bokku pap waaw gis nga lambar lambar kenn mënu ji la jee toogal nii man maa ko moom wala ñu wax la pexe bi tax ñun xam ne ñu naan lambar lambar barki Serigne Touba. ok ngeen jàll après lambar lambar benn nga bi ci topp. waaw non dama lay wax li tax ñu lambar lambar. lan fa la jógee. waaw maanaam sam maam bi nga xam ne moo jur sam papa. waaw dama daan yónni. waaw su ma yónnee. nga sama xarit bi. waaw yónni ma ci Afia. Afia su ma ñëwee ci Afia. Afia ah. Afia Afia su ma ñëwee ci Afia damaa war delluwaat ci sa maam de. waaw ndax sa maam ci Afia la ma dem mais su ma yónnee ci Afia. damay ñëwaat ci Papa Ndiaye jaarat fa di mbalagante jóge ci Papa Ndiaye dem ci aada di ah, mbalagante su ma jugee ci Papa Ndiaye dem ci Mëjë ah dem ci Amet di tërërëri <laughs> léegi su ma ñëwee ne sa maam ni ma lan moo tax ba mu la yónnee ba léegi ñëwee ci ni ma yoon nga topp dëkk bi di lambar lambar yi donc foofu la lambar lambar bi jugee. Euh, ndax lambar lambar yi ku toog defoo ko kuy dox na nga lambar tam lambar lambar yi ba ñëw fii waaye suñu génnee ci émission bi ñu fay indiwoon ñu génnaat jaar fenn rek lambar lambar yi. sa sa sama doomam lay nuyu Garmi Ndiaye. Garmi Ndiaye seetaan grand bi ndaanaan la. kooku. naan sàkk looma moomu looma Asia ma moom loolu. doo ma teree dund doo ma teree dund sax ak a dégg sama doom ji. gërëyee la. Pape waaw est-ce que xam nga ni kooku. lu mu dugg tey maa ko ci dugal. macha allah dama ko doon téye nii teg samay loxo nii naan ko boo prié wul. moo tax ma rey la. ku ñàkk ñaan la mi ngi koy barki sëñ Bamba. ñu dem ci Asia ñëwaat Asia tey nga ne foo jëm. waaw tey fourier la ñu indi comme euh, chaque mardi. waaw dañuy bàyyi euh, papa tegal ñu élément bi suñ ñëwee ñu mun ko décortiquer. papa wala kii. kan. dafa am euh, kii rey man xam naa ko ndax man maa ko hébergé Luxembourg. yow man lijjantiwuma loolu. mooy kii rey Mor Ndiaye jeune homme tee ngaa tee samay man sama ah. diw. Mor Ndiaye man xam naa ko maa ko hébergé Luxembourg. waaw. Oh. waaw. waaye du problème mu wecceer fay na ma yow ñu dem waaye daw loo dem rek. bii ma ko hébergé ma laaj ko. lan moo la fi andi mu wax ma na moo rey Mor Ndiaye te justice Sénégal depuis vingt ans ñu ngi def enquête bi mënuñu xam ci ko rey man bi ma ko xamee woo naa woote naa fii Sénégal na leen xam naa kii rey Mor Ndiaye ndax sama kër la nekk si Luxembourg dans pendant six mois quinze jours ah oui mais Sénégal. ah dawloo bu ñu dem gaañ dawloo la bu ñu dem nañ nekk nii rek di toog si bureau yi rek di fayeku di lekk yi baax. waaye kii dafa bëri wax daw la ñu dem bàyyiwul foofu. jeune homme yow qu'est-ce que ah. tu te prends pour qui ah ak dama lay gaañ ah. mën a wàññi yow. dama may band yow boobu na xam luy band yow. a selle ñu dem waaye xaaral daw la loolu fii. Ah, kii bàyyi ko fii muy mbéb mbéb mel ni segu rek. yow bu fekkoon Mor Ndiaye sa mbokk la di nga ànd sa enquête. waaye xaaral ma dëgg yow man lijjanti ma Mor Ndiaye waaye. man sama pasteur man maa ko lijjanti man liggéeyu leen maa ko wax. ku loo xam ne yooyu ak yow say cax yu bari nga wax. di ngeen yàgg si di nelaw xamul leen kii xay Mbour Ndiaye. waa jox ma sama monnaie damay wàcc. kii dafa bëri wax waaye sama monnaie ma wàcc. waaye Seydou Ndiaye wàcc wàcc. pardon ma am nu mu la laaj rek. waaw ma laaj rek toogal. dama yaakaar non du yàgg toogal Cheikh Assibou. daaw dama. du ni dama la dégg ngay wax affaire Mor Ndiaye ci rey ak ci reyul. waaw mañ kii xay moo wax xam naa ko. da nga ko xam mais justice Sénégal noonu man nan la ñu mën a def enquête vingt ans mënuñoo xam kii xay moo Ndiaye. ah bon tax ma xam ko wax leen ko mënuñu koo gëm ah. kii xay moo Ndiaye li Sambour maa ko hébergé. yow mii dans six mois quinze jours ma hébergé ko li Sambour ba wax na ma ñoom ñaax yi ñu jotee. père yow histoire bi li nga ko nii. xam naa ni man li ma ko maîtriser ak ni nga ko maîtriser boo ko xam ne histoire bi day feneen man ka eh, maa xam histoire bu ma ko waxoon yow may ma may wax dafa am solo waaw justice bi liggéeyuñu commissariat yi liggéeyuñu benn police yi liggéeyuñu su ma amee dégg-dégg bu baax yow leer nga xam nga ko bu baax xam naa ko est-ce que xam nga est-ce que xam nga nit dafa war a bàyyi fu mu toog rek di wax fu mu toog di expliquer ne dafa am benn nit bu rey nit bu ñëwoon ci moom moom mu fat mu tëye ko nee na xaw ma Mbaye Ndiaye la rey Mbaye Ndiaye je pense en tout sant Ndiaye la daal naa benn pam <laughs> benn pam Ndiaye. mu doon Mboy Ndiaye Mor Ndiaye effectivement <laughs> donc dafa dafa fat kooku nee na da doon woote di wax ni ko moom fat na nit ku nit ku rey nit ndaxte gendarme ma taxaw nekk ci biir. <laughs> mais exemple bu garaaw la joxe nag nit da nga war di tëj sa làmmiñ. yow mais toog ci biir nit di kabetu rek mais yow mosoo fat ku rey nit. xanaa yow la xale yu jigéen Sénégal yow rey ngeen moom. rek. xale yu jigéen Sénégal moom. fu mu toll ni amatul doom xam doom ak papa am problème ci réew mais moom moom fu mu toll ni amatul doom moom yi mu yoroon yëp jigéen surtout jigéen. moom jigéen la gën a bëri la woon ay doom mais fu mu toll ni deseetul dara. ndax ñoom ñëpp ñëpp ñëpp la kii. affaire boobu noonu kii. tatouage <laughs> yaa ngi indi sama copain ay problème de <laughs> <laughs> eh xale yi ku normal rek la ñuy tatouage ñoom dañoo yaru yow it nag. Hmm. génn ci yooyu. mbool ba léegi waxoo ma. mais ay ay ay loxoog ay yooyu yooyu. waaw non fu rafet rek. fu rafet. waaw. kenn boobu la dëgg xam hmm. nga kenn maanaam fenn fu ñaaw mais fépp rafet. mais kii booy bii. waaw. mais mais mais programme bi nga jëm. programme bi nga jëm. mais est-ce que dugg nga ci bonne <coughs> volonté yi ba wax ak ñoom ñu xam ni doomi Kër Massar doomi yëmbal jóg na. Pape Kër Massar rek mooy sama lépp. Mhm. bu weesoo Kër Massar nga xam ne dama fee ñëw feneen fu may gërëmaat ngaay laay gërëm ndax man la laay wax chaque jour boo waxee ngaay fu mu toog danaan ñu leen moo tax ñu bëgg mbool son bu mu génne woy ngaay. mais nag boo ci boolee monsieur le maire borom da da ciy jàpp de. monsieur le maire na ñëw. da ciy jàpp de. barke yonent bi. meeru ngaay xam aw laa ilaaha illallaah kooku noonu wax dëgg yàlla moom ku baax la. sama copain mais tamit papa As Diagne ki nga xam ne tamit mooy suma xaritu papa. dafa sama papa lu ne. kooku moom duñ rawat tamit di ko gërëm chaque jour ndax ñun sama papa mën naa ne fu mu yegg rek As moo ko fa gën a yóbbu. mais fan la fan la centre Verdure la la ci Kër Massar. bi mairie Kër Massar la. ah ci biir mairie terminus Kër Massar. mais góor a yëg na ko. moom laa tuddi bis bi. waaw non moom moom moom bu dee moom rek moom moom. Pam Ndiaye bis bii. waaw soo ci ñëwul ma bala non damay ñëw góor a fay lu mu tàkk. barke Bamba Mbacke. kooku ku ne xam na ni. yow moom àddina ñëpp dañ laa waxal ñàkk ki ñaan xeebaloo kenn dara kenn du xeeb kenn mais Pam Ndiaye bis bii waaw ak autorité bépp boo xam ne dem nañ ci yow yëgal la ko bëgg nañ nga ñëw ndax bis bii doo nga feet boo xam ne tamit na Kër Massar bi mooy dixième ñu koy def année bi di wax tamit na loo xam ne tamit wuute ñu ci loo xam ne ñun suñu jëm bopp ñun pour luy bégal ñun suñu xol la ñun ngir luy bégal Kër Massar la ndax ñun chaque jour ñu ngi toog di géwél nga di ambianceur di artiste war ko def di ko def ndax ñun dañoo bëgg ñun personnellement ñun li ñuy bëggal dañuy mhm. bëgg ñun mu génn ci suñu xol dem ci xolu nit ñi mhm. ndax li ngay bëgg yow sa jëm bopp waroo mënoo koo forcer nit ñi da fexe yow ngir nit ñi bëgg la te comme Kër Massar nekk na san jeune boo xam ni nit ñi bëgg na nañ dañuy fexe ñun chaque jour ñoom ci li leen di bëggal ñu di ko def wax rawatina tamit fête gi fête doon na loo xamante wax dëgg yàlla gisaguñu benn autorité boo xam ne ku taxawal ngir def benn programme. mais est-ce que dox nga ko est-ce que dox nga ko parce que souvent aussi c'est comme ça ah soo jugul duñu la jàppale souvent soo gisee dara da ngay yóotu sa loxo yàlla dimbali la ba ba nga jot si. mais na da ngay gis yenn autorités yoo xam ne dañuy wax ak yow bu ñu waxee yow ba pare pour nga gis leen problème la ndax ku mel ni Mame jaawa Diao euh, xaritu Seydina Ousmane Danso moom recevoir nañu woonu mu ngi bëgg a doon président woonu nañu ñëw mais boobu léegi nii. gisaatuñ ko déggaatuñ ko. mais faut aller vers lui parce que instant bi comme ni comme ni nga ko waxee. ci mm. élection lañ nekk. gars yi ah. dañuy bëri ay dugg-dugg ak ay génn-génn. Mm. léegi yéen bëgg ngeen da ngeen di dem auprès ci li ngeen bëgg. waaw mais ki nga xam ni dafa opté woon ngir gis la. Mm. pour nga jëlante ak moom coordonné lenn rek ngay mën a fexe pour woo ko pour ba xam boobam fu mu nekk waaye bu la wuyul mënoo ko fekk ji. ok ndax ki nga xamul fu mu nekk mënoo ko xam. mais sama yaay jaay ba njaay. Mm-hmm. kooku moom doon na jigéen macha allah lépp lu ñuy def Kër Massar dañ ko ciy woo. mu ñëw lépp loo xam ne nit ñaa ngi koy def mu ngi ciy jàpp mu ngi ciy dugal loxoom. Mhm. donc tamit génne naa cassette woy ko man ak moom ñëw dëkk. autorité yi nga xam ne ni jógee ba ca àll ba di ñëw ba ci sama yaay Dieynaba Ndiaye ngir mu jàppale leen. doomam ji nga xam ne moo sës ci moom ba muy jëkk a yor palaat jëm di tëggal Ablaye Wade mhm. doomam ji moo nekk ni tey doon vainqueur Kër Massar te lu ñuy xew man maa koy tëgg dina gën a baax bii na dama koo jox bis bi nee naa ko moom laa jël bis bi féetale ko ak bépp autorité boo xam buy dem bàyyi pël sama xarit mhm. kooku barki démb moomu yóbbu lax jox ma xaalis bu bare bari jox ma bis aller le tour fay ma xaalis bu bari bi ni dem di ci Macky Sall mhm. donc na man maa ngi nii personnellement ànd ak guma kenn ndax gisaguma kenn ku may dooleel. am nga ful la. Ah, bala maa ànd ak ah, kenn. Mhm. Pape damay gis ku may dooleel de. ndax yaa ngi fi taxaw léegi di lim say géer ñu baax te xam naa ni koo ne ci Pape maa ngi nii salaamaaleykum mu jox la lu baax. oto bu baax bi ma yor ñoo ma ko jëndal. 15 millions lay jar. ñooñu samay nit leen li ngay wax rek géwél yi géer ñi leen di teral léegi nag temps jeex na te benn morceau moo la dese mais du du tee ma invité la. sama boy bi waroon ñëw fii tey xam nga maa ko indi fii ñu koy fay Mara animateur la Mara dafa daw mais le 16 maa ko indi ñu ko dimbali ñu koy fay xaalis bari. moom day bew. yaa ngi ni Mara le 16 Mara mooy sotti maa ngi man li ma jeexal Pape yow ko bëgg ba pare tam moom nga def photo profil. man mu daw nag léegi nag le 16 day def lu rëy moo pagaay mbay ca rafet. Mhm. le 16 bëgg naa nga invité naa la na nga ñëw ndax ndaanaan yëpp a ngi koy xaar te pagaay ngi répété lu garaaw le 16 moom su suñu yëf la ñun waaw suñu yëf la ñun waa 7TV invité naa la ci ñëwal mais nag ñu dugg ci dernier morceau mu doon Gentlemara Events présente le Gala de la Jeunesse. Oui, deuxième édition du Gala de la Jeunesse. L'animateur, le chouchou des Sénégalais, xale bi xale yi bëgg moo woote pour fêter ses huit ans de carrière le 16 décembre à partir de 21h dîner bu nar a neex animé par l'artiste le phénomène Pagaye Mbaye au restaurant du lac le ravin bi ravin la ñuy dugg fêter les huit ans de carrière du l'animateur Mara xale yu jigéen yi se xale yu góor yi gën a sañse ñu le gala de la jeunesse ndax xale bi woote nag ay eh, dafa mën a sañ salaamaaleykum maaleykum salaam salaamaaleykum maara ne ma maa ngi woo sama mbokk animateur yëpp bàyyiwuma kenn ñi ma mag ak ñi ma bokkal génération pour fêter samay huit ans de carrière yi ma def ci média waaye li ci neex mooy def ci boole thème bu am solo mu di solution ci émigration clandestine toog fi tekkee fi mën na nekk kon rendez-vous tous pour le 16 décembre à partir de 21 heures entrée par personne 10 mille VIP prestige 15 000 Mara borom 7TV Mara borom jantal Mara yaa woote de kon le 16 ñu wàccee ravin ànd ci ak Pagaye Mbaye xale bu ko mën nan nga alaaji maaraangoog sama booy la boo xam ne maa koy dimbali Asia wala maa ko indi fii muy liggéey waaw di nuyu sama ñaari papa yi waa ko du Ndiaye Rose yi waaw ah? kooku moom sunu papa la macha allah di wax ni bokk ak Iba Ndiaye lu bare bare bare bari waaw bokk ak tamit sunu papa jooju mu baax lool di wax tamit na yéen ay référence ngeen moom bi may xamante moom Kër Massar dafa ñëw tëgg si fa xew yënga liñ def waaw fukki million lañ teg sargal du Ndiaye Rose fukki million ci loolu ku jël P jël 5 ku jël 2 jël 5 man damay tëgg bis ni ki tey commencé naa répété. pap 5 millions day ay caaxaat. pap damay xaar ban woo rek ni ma yaa ngi ci biir. non boo paree léegi dañuy jël sa numéro. yéen a nga ànd ak booy ñëw même Asia tey ngaa répété ji. maa ngi ci ay caaxaat de. maa ngi yooyu ànd <laughs> mais c'est normal. waaw ndax euh, ak fi euh, aar bi toll. papa Doudou Ndiaye Rose El Hadj Wesseng Faye Mbaye Dieye Faye Youssou Ndour Omar Pène papa Thion jamono ji mel ni jaxasoo war na leen cité ci ay références yoo xamante ni nekk nañ fi ba jóge fi kenn mësu leen atte kenn mësu leen dégg nangu nan ni yàllaa yor wërsëg yi di ko joxe te ku ci ne la jox doy na la ku ci ne def nga fi li fi def am fii kër am fii teraanga te dara ñaawul na xale yi roy ci ñoom Asia mhm. looy tàggoo li nga tàggoo de jarul ñu si teg dara xanaa di wax mbokk téléspectateurs yi ñu joxante rendez-vous ba demain incha allah suba mm. bu bay yëngal ko ba mu neex maa ngi leen di kontaane di leen wax ni nii rek lay demee suba ñu ñëw ci yaasin buub yëngalaat ba mu neex jeudi ñu yëngalaat ba mu neex waaye di gërëm Baye Modou Kane Baye Modou Kane mooy jaaykatu téléphone bu mag bi mbool looy tëjee looy tëjee suukar juróom yàq sa cere ko yow feccal ko yéy xale bu ci yar yéy cere cent franc meew du raasa suukar juuro yéy xale bu ci yàq sa cere meew yow feccal ko raki jaki jaki jar cere yéy ku ci yor sa cere meew Raw Raw